moo waral jataay bi tey ji nag li tax ñu woote fi du dara lu dul bis boo xamante ni wala waxtu woo xamante ni dañu ciy sant yàlla sunu borom tabaaraka wa moom mi nu bind di ko tuubal nag di ko jéggulu ci li nga xam ne xam nan ko ak li nga xam ne xamunu ko di sant yàlla yi tamit ci lépp loo xamante ni dogal na ko ci sunu jëmm yi wala mu dagal ko ci jëmmam ji muy sant yàlla loolu rek di jéggulu nag mboolem koo xamante ni yëkkati nga sa tànk ñëw fii wala yëkkati nga sa kàddu ñu lay jéggulu coono yooyu ak fitna yooyu ak teg-teg yooyu nga xam ne tegu na te dara waralu ko lu dul jëmmi sëriñ bi moo tax sëriñ bi nag woo leen fii ngir bëgg a yëkkati ay kàddu yoo xamante ni day jëm ci mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yépp xam ne li nekk ci xolam ak li nekk ci xalaatam muy ëmbal ñépp aw yiw taalibeb sëriñ tubaab bi mu doonoon ak di liggéeyal sëriñ tubaa tey jii la ko gën a yeesal ci kanamu askan wi tey jii la ko gën a yeesal ci ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ tubaa muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa loola nag bëgg ñu seereel leen ko dégtal leen ko ba ku nekk foo mën a tee demati loo mën a tee wax nga ne dégg naa ko ci kàddug sëriñ bi ak sëriñ bi wax leen ko ba la ngay wax ak la ngay njort ak la ngay xalaat lépp leer la nañ loolu rek moo indi jataay bi yàlla ak gërëm ko ak kañ ko ak tuubal ko ak ñaan yàlla mu defal nu tawféex ci liggéeyam bii nga xam ne dañ koy liggéeyal lislaam di ko liggéeyal sëñ Touba dara bañ cee yàqu dara bañ cee fànq loolu rek mooy jataay bi moo tax nag ni nu bëgg jataay bi tëddee nga xam ne kàddu yi sax bu ngeen gisoon émence bi nii rek seen xol war a sedd wala ngeen xam li nu jublu li nu namm ci kàddu yi dinañ jël kàddu yi jox ko kenn koo xamante nii muy sëriñ Mouhamadou Lamine Ndiaye dafa doxale digganteem ak sëriñ bi ak sëñ Touba mu yëkkati kàddoom wax leen fi mu toll ak fi mu nekk bu nu noppee dinañ jël kàddu gi jox ko sëriñ Seexuna Lo yi nga xam ne rakku sëriñ bi la ñoo bokk sëriñ daam muy rakkam waaye dib taalibeem sëriñ daam boole woon leen mu bëgg a wane taxawaay bi nga xam ne booba ba léegi tund lislaam bi képp koo xam ne ab tarixa nga yaa ngi yëg-yëg yëg bi yaa ngi koy dund loola mu yëkkati kàddu delloo la kàddu yi nga xam ne moom la ñu woon ak mbir mi taxawaay bi ñu ci taxaw loola mooy doon kàddu sunu noppee nag sëriñ bii moom mooy yëkkatil boppam kàdd muy sëriñ Mouhamadou Lo Ngabou mi yëkkati kàdd yoo xamante ni du kàddu yi dara lu dut wan leen fi mu nekk ak fi mu jëm ak li nga xam ne moom la nar digganteem ak yàlla ak digganteem ak sunu borom ak digganteem ak sëriñ Touba ak digganteem ak taalibe sëriñ Touba kon ñu ngi jël kàdd gi jox ko sëriñ Mouhamadou Lamine Ndiaye mu yëkkati ko ci mbooleem turu tër si taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñoo nekk ci bitim réew te doxale seen digganteeg sëriñ Modou mii ngir sëriñ Touba kon ñu jox kàddu gi bisimilah. aawuzu billahi samiil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim habli dawaama shukri lil jinaani bi ruuxi wal jasadi wal janaani ñu ngi sant yàlla bu baax ala kulli xaal di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa suñ borom yàggal ko fi lool te wéeral ko ak mboolem njabootug sëñ Touba gi di ñaanal suñu sang bi suñ borom dolli koo defal tawféex yàggal ko fi. wéral ko ba lépp lum naal ci lislaam suñ borom kàttanal ko ko mu àggale ko ci sagoom te ànd ak moom liggéey bi yëpp di wax nag ci mbooleem turu jëwrin yi ak taalibe yi yi ci biir réew mi ak ci bitim réew mooy di di santaat yàlla bu baax ci lépp rek te fas yéene feddalewaat suñu laxasaay ak suñu jaayante ak suñu cofeel ci Cheikh Mouhamadou Lo mi fas yéene it takkaat suñu laxasaay ànd ak moom ci mbooleem liggéey boo xam ne naal na ko ngir lislaam di ko defal Serigne Touba mooy ci mbooleem daara yi nga xamante ni sumb na ko ak bépp bis boo xamante ne mi ngi koy def di ci sant la di ci sant yàlla ci boole gi mu ko booleeg Serigne Touba ñu fas jaayante jaayantewaat ànd ak moom ci lépp tey di ko seetal àdduna bi yëpp xam ne liñ àndeek moom mooy jëmm yàlla ak yonte beeg Serigne Touba loolu it moom moo ñu ba ci moom moo ñu ci moom ñu fas yéene ko ànd ak moom ci lépp incha allah loolu xam naa ne kàddu yi moom comme waxtu wi gàtt na jarul muy bari dañuy sant ak fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi ñu ngi sant bu baax. bismillahi rahmaani rahim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum laa taaxusuhu sinnatu wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi lardi man za allazi yasfahu indahu ila bisni yalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituna bishayin min ilmi illaa bi ma shaa wa shaa kursiyu samaawaati wal ardi wala yauduhu wa huwa al aliyyul aziim assalaamu aleykum wa wa barakaatu ñu ngi kàddu ndigal yu bàyyi ko ci sunu kilifa di sëriñ Mouhamadou Lo ibnu sëriñ Ndaam Amsatu Lo ibnu Cheikh Ibrahima Lo di kàddu yoo xam ne ci ndigalam lañ koy yëkkatee mooy kàddu ñetti ñetti xaaj lañ koy xaaj bi ci njëkk mooy kàddu sant ci mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi ak mboolem njabootu umma islam bi gis nañu ne jamono yi yëpp mboolem njabootu umma islam yëpp mboolem tarixa yi nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi jël seeni tànk di yegg si fii ci ngaabu di ko sant ak di ko ndokkale ci cër yàlla bi nga xamee ni ñu ngi koy liggéeyal yàlla te ñëpp yàgg koo xam ci moom cant googu nag ñu ngi ciy jiital sëriñam di Cheikh mun Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ñaanal itam mboolem tarixa yi nekk ci Sénégal yépp sëriñ Mbay si Mansour sëriñ Babacar si Mansour di xalifa Cheikh Alhaaji Malick di sant sëriñ Mahi Niass xalifa Cheikh Ibrahima Niass di sant sëriñ Cheikh Mat tiijaan ñas xalifa Léona Niassène di sant Cheikh Mat Tidiane Ba xalifa Medina Gounass démb seeni ndaw ñoo fi mujj ci sëriñ bi ak mboolem tariixa yin bokkal yoon wi yëpp sëriñ bi nag def lii nga xam ne moo waraloon ñoom ñuy jéggi seeni tànk di ñëw fii lépp mu def ko sant ak yàlla ci borom bi subhaanahu wa taala léegi dama wax ne ma am na jëf yoo xam ne yàlla bu koy yéegal ci doomu aadama faw mu am sabab bu sabab ba amul rek jëf yooyu du am te moom yëg na ci diggam ak boromam ne bariwaa na jëf yoo xam ne bu amutoon cëram ci yàlla du yegsi fii mu yegsi kon nag mu ngi sant yàlla bu baax di kañaat yàlla bu baax di jeesalaat ak jaayanteem ci sëriñ Tuubaa melow wi melow bii nag ngeen ko xamee ndaka jekk mooy aw melokaanam sunu waajur wa di sëriñ daam am sëtuloo yàlla dafa dogal mu amoon euh, euh, sago sago ci moom lool yàlla dogal na man mii di wax ak yéen maay doomam ji ko gënoon a jege ndax yàlla dogal na ñoo daan defandoo lépp moom sëriñ daam waaye daan na ma dénk ci moom ay kàddu yoo xam ne néewaa na ku ma ko dénk ci moom moom sëriñ Mouhamadou ndegam am na kàddu jàpp kàddu pëstéef kàddu sopp ko ba kàddu yi mujjee waxanteeg moom dane ko bëgg naa ba ma wàcceeb liggéey yaay mujj sama yaram sëriñ Ndaam fonkoon ko lool te sëriñ Ndaam ñu bëri xamoon nañ diggam ak boroomam ndax ñu bëri xamoon nañ fa mu toll boroomam daan na wax ne bëgg naa sëriñ Touba bëgg goo xam ne barab ba gën a lëndëm moo fa duggoon sëriñ sëriñ Touba dana ma ko leeralal kon sëriñ Modou mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp itam kàddu ñaareel gi itam mooy xew-xew yi nga xam ne moo waraloon nit ñi di fi ñëw muy xew-xew yi sant yàlla di si jaaraat ñun ñëpp xam nañ ni mu xewee muy xew-xew yoo xam ne li ma leen wax léegi noon ya lañ bëggoon buñ ko amoon jataay bii du am waaye sant yàlla am na ci moom it delloon na lépp ci yàlla te xam ne sabab bépp yàllaa ko waral kàddu ñetteel gi mooy jéggal na ñëpp moom sëriñ bi dana ko yëkkati ci kàddoom ñëpp dégg ko mooy ñan téewoon ci wàllu yoon ak ñi ñi nga xam ne ñoom la enquête yi doon topp ñëpp jéggal ne li ngir jëm yàlla te lu weesu subaak jàmm dana bind wenn kayit woo xam ne dana ko e, firndeel ci ci xalimaam ngir ñu jébal ko procureur ngir ñu xam ne jéggal nañ ñëpp ngir li wàcc xillaahi ngir barkeeloo ca la sëriñ Touba defoon ba mu jógee ca tukkeem ba jéggal noonu yëpp moom sëriñ bi itam muy xam ne ni fa mu nekkoon diggam ak boroomam tey la fay gën a nekk mosu jóg itam saa buy yëg diggam ak boroomam itam lii ak cant la ci yëg bis ya mu daan woote mu ñetti bis yi rek la mos di woote muy gàmmu gi di guddi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam di yow mi badrin di bis min xaree badar ak bisu xasida bi nga xam ne mooy doon ajuma njëkk ci weeru safar nee na incha allah bis bu nekk buñ ca yeggee nan ko daan wootee lan koy wootee pexe yi noonu nag moo doonoon woote yooyu yëpp tegu ci suuf waaye Serigne tubaab bi nga xam ne mooy kàttanal kàttal na ko kàttanal na ko ci dara jaam aku baaxam ba woote yëpp kanam la jëm waaye du deltu ginnaaw mukk